waaw dañoo jàpp ne que euh, mbas mi dañoo war a dañoo war a taxaw askanu Mbàkke lii nag dafa ñëw mottali sunu yéene ci jëf ñu doon def fan yi yëpp déjà am na lu ñu ko jox préfet mi ngi jiite moo xam ne moo jiite le comité départemental de la lutte d'une valeur de un million euh, ba pare jàppale yenn poste de santé ci ay draps ci ay euh, produit d'hygiène ci alcool gel ci ay gants pour mën a fexe ba personnel de santé bi nga xam ne ñoo nekk en première ligne mën a xeex ak également euh, maladie bi lii vingt tonne ceeb la daanaka euh, ëpp ko sax ak euh, je pense on est à huit huit huit tonnes de sucre donc on est autour de dix millions donc lii contribution bu ñu indi la pour jàppale population Mbacké amul xaaj amul seen dañuy xool quartier yi nga xamante ne nii ñu jàng fa ñu ko ñu yeyoo ko ñu jox leen ko. sans distinction de kii fii bokk ak kee fee la bokk c'est destiné au quartier aux population ku ne si ñoom dinañ mu àgg si yow pour wane suñu yéene ci ñoom buñ sañoon tey Mbàkke dañu fii wàccee lu ëpp li fuuf waaye nag fii euh, maanaam dañ ciy wane suñu yéene rek ak suñu cofeel ci population yi Mbàkke fexe di ñaax it également ñu képp ku war a jot nga jot ko ci quartier ba nga dëkk mm-hmm. amul tey benn quartier Mbàkke buy des amul tous les quartiers de Mbàkke dañ ko dañ ko dañ ko diviser ay zone ñooñu ñëpp incha allah danañ yónnee seen seen seen seen seen seen ay low pour ñu mën ci euh, dimbali population yoo xam ne vraiment dañ ko dañ ko dañ ko yittewoo jamono ñu nii. d' accord génn président ñenn ñi jàpp ni dafa cédé à la pression ba sax euh, benn leader politique ci mel ni Ousmane Sonko bokk na ci ñu ko ŋàññi ndax gis nga ni mag Sall dafa dafa xaw a lajj ci génn bu mujj bi. non man jàpp naa ne président de la république c'est un leader c'est un responsable dañ ko dañ dénk réew mi dénk ko suñu santé dénk ko suñu alal te lu mel ni su amee tamit dafay baaxit it muy déglu te président day déglu day déglu ñaari ñaari ñetti catégorie nit dina lu également ñuy wax dañuy déglu d'abord les experts sanitaires maanaam ñi nga xam ne dañoo seen xel dafa màcc ci wàllu santé ak ci wàllu épidémiologie dina déglu également opinion publique bi dina déglu tamit kilifa diine ci réew mi donc c'est un président qui est à l'écoute des populations te it lu mel ni su amee da ngay jàngat seen discours jàngat également li nga xamante ne moom la ñuy wax ci wàllu feebar pour nga mën a jël décision yi nga xam ne moom méngoo ak situation bi situation actuelle. boo xoolee li xew ci àdduna bi yëpp loolu moo fa am donc débat yi am ni pour man amul sens tey dañu war a fexe ba population yi concentré wu ci xeex feebar bi débat bi du weesu bu weesoo ñu def bilan évalué si. la position de l'État sur la posture du président a ont été adéquates durant la durant la pandémie. laaju El Modou bi muy li nga xamante ne ni noon la ñuy artoo fii ci diwaan bi ndax gis nañ ni coronavirus bi mu fii law bu baax a baax bay fàtt sax ñenn ñi lan nga leen di conseiller ñu yeewoo fii ci diwaan bi. waaw dañ leen di ñaax rek ñu gën a gën a sàmmante ak ak ak ak ak dig digle nga xamante ni moom la ñoom la waa personnel santé di joxe. feebar bi lu am la saa su nañu dégg ñoo xamante ne nii euh, Tuubaa la ñu dëkk wala Mbàkke wala ci réew mi wala ci àdduna ñu ñàkk seen bakkan kon nag jot na it ñu gën a xam ne lii lu wér la lu am la ñu jéem a sol suñuy masque di rax suñuy loxo ba mu set loolu même temps normal jàpp naa ne dafa nekk loo xam ne mooy mooy li am parce que développement tamit dafa ànd dafa ànd ak wér-gu-yaram kon dañuy ñaax population Mbacke ñaax population département de Mbacke yëpp ñu gën ci bàyyi xel euh, en tout cas loolu laay mooy sama message mooy message également de tous les responsables yi àndaman tey ci pour que population Mbacke gën a xam ne que lii lu am la tey war na góorgóorlu ba bu mu layoo ci ñun